يا غير ضيف الأدى بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen guddik allah muy dimas dimanche fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril 2021 sëriñ bi ne guddik juróom-benneel ga ku ca julli ñaari rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatixa benn yoon ak qul huwallahu ahad ba wa jeex fukki yoon ak ñaar ne loolu ku ko def mel ni ku julli ci maqaama Ibrahima junniy rakka julli ci jàkkay Makka junniy rakka saraxe junni dërëm leele junni ñu xiif te bu ñaanee des na ko nangu mel na ne it ku jox ndogu xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wépp te bu faatoo it ñu boole ko ci ñi nga xamante ne dee ci jihad te dees nako musal ci mititu nako te bamé lamit nako ko defal mu bokk ci dëri aljana ya te buy dekk dana andak leer gu melni jant bi di xeeñ geut gu neex te dana tabbi aljana te dees ko xisab te ca mbolam yonent ya lay bok bu ëllëgee kon juliga ngok yàlla nañu ko sa borom man la wata ñu def ko te def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko làq ka fa yàq eggul barkati Cheikhil Xadim يا خير ضيف الأداء بالبر والمداد هلا وسهلا وترحبا للأعداد